suprême Sonko dellu na ginnaaw daal di jiital ki nga xam ne rek moo di Bassirou Diomaye Faye Vox Populi ne moom kay pare na na Diomaye Faye ngir mu jëm nag ci élection yi nga xam ne moom la ñuy amal ci atum 2024 yéenekaay bii di Le Quotidien na coppite am ne de ndax nag Bassirou Diomaye Faye mooy candidat bu ex Pastef eh, ci yi atum 2024 yéenekaay bii ne ñoom kay jël nañu seet ay matukaay bu baax ndax nag ña ngay xalaat ñu daal di gàntal Ousmane Sonko bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 mu di dogal goo xam ne sukkandikoo ci yéenekaay bi di réew mi quotidien loole nag moo sabab sax le quotidien dikk ci ab projet bu ñu daal di soppi ne Bassirou Diomaye Faye kay jamono ji moo fas yéene demal waa Pastef ci les jongante bu ñu sukkandikoo ci Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna ak Abass Fall ak El Malick Ndiaye ñoom nag ña ngay sàkku nag ñu daal di tënku ñoom ñépp ci ginnaaw Ousmane Sonko ak dogal gi mu jël bu ko defee itam ñu fas yéene dem ba jeex janook nguruk Sénégal l'info dikk ne Bassirou Diomaye Faye fi mu toll nii nag mooy plan B bu waa Pastef de te fi mu toll nii Ousmane Sonko ma ngay ngay sàkku ci ay ñoñam ñu tàmbali parrainage yi tey jii ci altine ji bés bi le jour na Ousmane Sonko jiixi jaaxa yi mu nekkee ngir bokkam ci élection di a na fi na ci leneen plan B bi la ci biir ko xamee taxawaayam ak it lu mu ba dëgër bu ko defee ñu daal di sóobu ci bi boo moytuwulee ne seenu candidature bi dina takk suuf les échos ne léegi nag jeex na jiixi jaaxa gi ñu doon am ci candidature bu biram Birame Souleye Diop El Malick Ndiaye Guy Marius Sagna surprise bu Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye fay la tribune ne fi mu ne nii nag waa Pastef yépp jug nañu taxaw fas yéene wut lu toll ci million ci ay parrainage ci Walf Quotidien yéenekaay bii di xam ne ne ah Ousmane Sonko ma ngay jouer ay pion ci digganteem ak état bi de lajju moom xalaatu ko def ci seen kanam ñeel élection présidentielle yi laas yéenekaay dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne kii di Aminata Touré yëkkati na ko di fa xamle ni kii di Amadou Ba du yegg sax ci deuxième tour beneenub candidat di Anta Babacar Ngom la dépêche xëy ni moom dañu ko sox ay gaz lacrymogène ci ab tournée bu mu doon amal di wut ay parrainage foofee nga xam ne moo di ca diwaan bu Kolda yéenekaay bii di l'observateur xëy daal di fësal kàddu yu wexxat yi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko L'Obs ne Macky Sall jamono ji nag neexul deret li ko waral bokk na ci wor gi mu jàpp ne yenn ci collaborateur am dañ koo tàmbalee def lu jëm ci cadre Casamance yi nga xam ne rek dañ doon sàkk moom Macky Sall la mu xamle rek bokk na ci ñooñee duñu ay cadre waaye ay escroc la ñu enquête yéeni kaay taxaw seetlu nag ci jamono joojee sëgg ci projet de loi bu finance bi nga xam ne dañ koo war a nattal jëwriñ ji ci atum 2024 ay milliards yu bëree bëri ñu fas yéene ko caa dugal Le Soleil daal dikk nag ci nañu ko fas yéene doxalee ngir atum 2024 ak it am solo bi nga xam ne yokku na boobee projet de loi jëm ci wàllum finance yéene Attijari ci digganteem ak Attijari mu ne nag onze milliards ci suñuy koppar war na koo jot dossier boo xamante nii rek du mës a jeex waaye jeex na tey ndax nag ndam li mujj nañu koo jox kii di Bocar Samba Dièye bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi tàggat yaram la ñuy jeexalee yëglekaay yi ak stade bi nga xam ne dellu siwaat na ci éliminatoire yu mondial atum 2026 mu ne Sénégal nag imposé na boppam ci kanamu Soudan du Sud ci réew mi quotidien nag ñuy wax ci wàllu làmb jeexalee ko ak jongante bi amoon ci diggante Lac de Guiers ak Siteu décision arbitrale